qalbuka salaam وخليل وحبيب لمغنيا لأنت بيب بيوحيب إلى بيب يطلب خير لقامي هو خليل وحبيب لمغنيا لأنت بيب بيوهيب لبيب يطلب خير لقم يا خير ذكر نزيلا من خير رب أنزل ليتاخو دنزولا من سلباقا والقدام يا خير ذكر قد بدا ممن صفائي أبدا لقليدا نرى قد سأمن وقدامي أنت الرفيق للجنان يا من يسون للمكان ولتتي yibul janaan yaa xayra zikrin muhkami yaa xayra zikrin rutila bi famisa ذاكرا تالا سخلي سوى يمن قال وليكن وحكيمي يا خير منزل يوري ما قبز تدبوري ربي يوسف في فكري بك بخير تهامين يا خير ذكر قد جمع خير الأولوم وقاما ليعيد يومنا مني أزات وأومي أنت سبيلي والأنيس لقطفائق المخيس بقمة الماء الرئيس مكيسي بالملهيم يا خير ذكر قد ماها ما ساق القلب فماها هب لي يا كون ni mufliha bimanzilil mufahimi بك سألت مالكي كونيا نور سالكي وزنجيزا بناسيكي بمن جالا والمبهم وأن يقود لنا بي في عبد بنقوبي سلامي المقرب بلا امتحان والمختام وأن يقود لنا بي في أبد بنقوبي سلامي المقرب بلا امتحان والمختام ba tey ñoo ngi ci bis bi rek toog ak sunu suñu xarit ñu koy wax Serigne Jibril Faye doon it moom it xarit ci sëñ Ibrahima yàgg ak moom lool lool ndax ñun ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak sëñ Ibrahima kenn ku ci nekk jataay bu ñu dem bu nekk rek xam nañ digganteem ak sëñ Ibrahima wax dëgg yàlla doon lu yàgg lu rafet loo xam ne nii lii mu def nii rek wane na ndax ci suba teel la fi ñëw ànd ak ñun bis bi bañ ci daara ji jàngam bi ñu ngi fii ci bi moom la ñuy jox ko defee moom it mu sànni kàddu ci digganteem ak sëñ Ibrahima sëñ Sëriñ Jibril bisimilah salaamaaleykum di def euh, du ma def lu dul sant yàlla jullit ci yonentam bu tedd bi salallaahu alayhi su ngeen ma waxee ne ma wax ci sëñ Ibrahima mbay dina yomb dina jafe ndax man mii di wax ak yow jëmu joo xam xam ne dama xaw a zaayir sëñ Ibrahima mbay daanaka lu nekk ci man lépp mun naa wax ne ci gàttal bu weesoo ndey ak baay. ak sëriñ bu ma jébalu def na ci man lu bëri bari bari bëri bëri ndax nga xam ne jànkatu nasaraan di liggéey ci nasaraan yi maa ngi nii di liggéey trésor te wax dëgg damaa jàpp ne nag ci àdduna ñaar rek laa ciy tënk damay dëgg gaay nit yi naan ramu ma jàpp ramu ñaar la ci àdduna ki nga xam ne moo lay ramu ci àdduna mooy koo xam ne bu la seenee ci safaan mu génne la ci di la soññ ci jaamu yàlla di la jàppale ci lu ne ci loo xam ne nit yu baax yaa ngi fay jaar lépp loo xam ne dalay mooy loo mu la ko moytuloo te sëñ Ibrahima Mbaye jaar na foofu ak man man mii nga xam ne jëmu ju xeebu laa woon ni ma leen ko waxee rek ci jànkatu nasaraan dangay doon déglu musique di def lu ne ci ay jamono waaye yàlla ak mbaaxam ak kattanam dimbale na ma boobu bu ma xamanteek sëñ Ibrahima mbay di déglu ay xasidam suñ borom dimbale na ba dootuma déglu dara gënalatuma ma koy déglu lu dul xasida donc te te loolu yàlla suñu borom ci mbaaxam la ko jaare dimbali ma ci lool ma ciy sant suñu borom itam munoon naa nekk loo xam ne dama koy bàyyi sama diggante ak sama borom mu doon kumpa waaye bés bu toll nii bu amee day baax ñu biral loolu waaw ngistal taxu ñuy wax te société bi itam rawatina ay mbokk Ibrahima Mbaye eh, war nañoo gën a santaat yàlla ndax mag suñ borom mooy aji baaxal gi mooy baaxal nit mu baaxal ko te Ibrahima Mbaye taneef la ci biir taneef li suñ borom baaxal na ko ci boobu côté ndax eh, bari na ñu fi am ay doom ñu nekk ci beneen safaan ba donc suñ borom bu bu la dënkee takkandeer muy defar ci yoonu yàlla di digle ci lu baax ci yoonu yàlla di jàngale alxuraan di jàng xasida nu mu koy defee neex lool nga xam ne catholique bi nga xam ne xamul sax dara ci alxuraan bu ko dégloo mu nekk lu ko neex lool ci xol kooku wax na jàpp naa ne mbégte waa Mbakke yëpp la rawatina ay mbokkam te wax dëgg fa yàlla man mii di wax ak yow maag moom amul taqaliku saay bu ma fi ñëwee lu may gis ci moom mooy kaamil ci loxo ba durus laa koy xamee lépp lu muy waxtaan ci yow kaamil baa ngi ci loxo bi donc kooku taxoog moom nga am àndandoo yoo xam ne dañoo tegu ci yoonu yàlla tànn beneen wàll donc loolu laa amoon lu ma ciy wax di ko sant di ko gërëm ñuy def lii ay ati at suñ borom wëral ciram ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa barakaatuhu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare baax te leen jéggalu di ñaan suñu borom mu jéggal ñëpp ni ngi ko waxee rek ñu ngi siyaar baax mi nga xam ne suñu xarit la suñu wëllëre di suñu sëriñ di ko baax nu seq lu bari ci xasida yi ñu ku baax te am ak fekk suñu jëmm te yëg na moo waral suñ suñu teewaay fii ndax eh, li ñuy xat xat lu war a wax ne xawma lu cin lan bokk xoram ay moom moom suñ diggante raw na loolu lu man di woote bu nu ci gisul rek ngànt lu lu rëy gàllankooroon bu tax ñëwul moo tax tey ji li may xat-xat li may amee gàllankoor gàllankoor moom dama ne donte damay bàyyi dara ñëw fi moom danaa ko bàyyi ñëw fi ngir jëmmam ñu ngi ko ñaanal bis bi yàlla na ko yàgg woote te lim ci yéen lépp yàlla defal ko ci lu kawe njortam ba defala defalaale ko ku fi teew ci barke Cheikhul Khadim mboolem ku fi ñëw rek li nga bëgg sa bëgg-bëgg yaa xam ci sa xol suñu borom xam na ko yàlla na ci defal lu kawe sa njort yàlla na ko yàgg woote te suñu borom nangu lépp barke bi Sëriñ Tuubaa